lu yéeme lañu nar a gis ci magistrature bu Sénégal bi actuel procureur de la république bi di Serigne Bassirou Gueye dafa mel ni dafa nekk ci yoonu dem bu ñu sukkandikoo ci l'observateur bi nga xam si moom moo xamle lu ni mel bépp mbir bu jëm ci Serigne Bassirou Gueye moomu war nañu koo xam ci prochaine réunion bu conseil supérieur de la magistrature bi di CSM rax ci dolli sax conseil supérieur de la magistrature boobu waroon na am réunion jour bi nga xam si ci la Macky Sall demoon fële ca Dubaï jotoon nañ sax def ay proposition jëm ci ki nga xam ne moom moo war a remplacer kii di Serigne Bassirou Gueye ba nga xam ni def nañ na fa ay yenn nañu leen waaye tamit am na fa ay proposition yu ñu gardé ki nga xam ne nag moom moo nekkagun ci bopp bi nar ëpp chance pour remplacer ko moom mooy juge bii di Amadou Diouf nekk actuel président bu chambre d' accusation Serigne Bassirou nga xam def na ko nekk procureur de la république ci Dakar moo nekkoon conseil technique numéro un bu ancien ministre de la justice bii di Mimi Touré at yooyu mu fa moom moo waral moom moo gagné recours bi nga xam ni moom la fa nit mën a def foofu ci wàllu yàggaay moom moo dépassé ki nga xam ni moom moo ko fa jiitoon te muy Abdoulaye Gaye moom huit ans la ko jot a occupé ci jamono fi Abdou Diouf di nekk président de la république moom tamit naka noonu moom moo gagné woon ki ko fi jiitu